Fafa fatwa jërë ngeen jëf Cheikhana ci tontu leer yooyu euh, mbokk mi ci topp ñu ngi koy wax bu Mbaw moom nag masala miraas la fi bàyyi mi ngi wootee Madina nee na ab jigéen a ngi koo xam ne dafa faatu bàyyi fi mbokk jigéen euh, bu mu bokkal ndey nee waaye dafay bàyyi ay sët yoo xam ne doomam bu jigéen mooy seen waajur wu jigéen muy laajte masala moomu nan lañ koy farañ fàccee wa jazakumullahu xayran alhamdulilah mbokk moom yi di laaj masala ci miraas eh, ñu di ko xamal ne danañ faral di wax ci programme alfatawa di wax ne bëgguñu ci dugal miraas li ko waral ñaari mbir la mooy miraas dafa yor forme li ñuy tuddee alqada mooy atte xam nga ne alqada ak alfatwa bokkuñu mufti day laaj dañ koy laaj rekk muy ubbee waaye qada nag ñi koy def dañuy teew ñu lijjanti leen seen mbir ba ne leen fii la féete dañuy yaar yoo xam ne yu bokkut la te nit ka jombul mën naa dem ñi àtte ko ci miraas ba ne ko diw moo moom lii kii moo moom lii kii moo moom lii loola bañ koo neex mu dem jox ko koo xam ne day fatwa kooku fatwa ko noo xam ne dana wuuteeg la qaadi ja atte woon te qaadi nga xam ne moo teewe masala ba ba xam sew-sew yi ca biir mooy gën a xam la ca xew waaye mu daal di dikk andil leen waxi mufti ba ne leen li ngeen atte woon baaxut ndax laaj naa diw sàngam mu ne baaxut kon loola day doon loo xam ne des na ko di ko ci jotaay bu mel nii yeneen yi ci des mooy jëmmi beneen bi ci des mooy jëmmi miraas ci boppam dafa nekk masala boo xam ne mënee su koo jàngee ci ay rajo maanaam miraas ci boppam soo ko bëggee jàng dañ koy jàng ci téere yi dem fi boroom xam-xam bu ko man mu jàngal la ko su dee da am masala nag waaye jubluwoo jàng miraas seetal qaadi muy attekat su fekkee ne am na qaadi boobu yi mën naa doon qaadi boo xam ne sharia moo ko fa teg mu yor palaasu kuy àtte ab juge te fekk sharia lay àtte wala loola amu fa ñu dem ca imaam ja nga xam ne boroomu xam-xam la ci sharia mu daal di toog palaasu qaadi nam sañ a mayee ab sëy sëy ba wér ci lislaam sañ naa àtte ña nga xam ne dañoo ñëw gaaral ko seen miraas mu tegal leen ko ci yoon ba ne leen kii lii la yeyoo kii lii la yeyoo kii su boobaa kooku mooy toog palaasu qaadi miraas foofu lañ koy defee waaye duñ ko defee ci programme rajo danañ tontu nag ci masala mi ki nga xam ne dafa faatu bàyyi fi uxtu li umm maanaam eh, ki nga xam ne dafa bokk ak moom ndey tam doon jigéen bàyyi fi it sët maanaam bintul bint bàyyi na fi sët bu jigéen boo xam ne doomam ju jigéen moo ko jur sët boobu yi moom du donn sharia joxu ko donn ndax ci zawul arxam ci la bokk maanaam côté meen dañ koy tuddee bu dee ci wàllu miraas moom la ñuy tuddee zawul arxam ki nga xam ne nag mooy doomi ndeyam ji nga xam ne moom la bokkal jenn ndey kooku dañ koy jëkk a jox sudusu alal ji maanaam buñ séddalee alal ji juróom benn xaaj jox ko benn bi juróomi xaaj yooyu ci des su fekkee bàyyi na ki faatu bàyyi na fi lenn ci li ñu tuddee asaba muy aw góor yoo xam ne bokk naa ñoom ci wàllu geño lu war a mën a tax ñu di ko doon su boobaa dañ leen di jox la des ci alal ji ñu seddoo ko li zakari mislu xaasil unsayeyn waaye su fekkee nag nii ma ko waxee ci masala bi bàyyiwu fi keneen ku dul ñaar ñooñi rek kon alal ji jëpp eh, ku jigéen koo ki mu bokkal ndey moo ko moom fardan wa raddan bu dee sudus bi loolu fard la mooy farata ji nga xam ne ab cëram la bu ko a jox leneen la ca des muy juróomi xaaje dañuy ñëw xëppalaat ku ko jox ku ko ndax moom it sharia da ko koo joxaat ndax dañ doon seet keneen ku ko yoyoo faf keneen ku ko yoyoo nekku fi ñu ne ko yow dong yaa fi nekk kon jëlal am na nag ci biir borom ngër yi ñoo xam ne gisuñu ràdd dañoo wax ne su koy jëlee ab cëram na dem toog su ko defee la des te alal ja ñu yóbbu ko baytul maal loolu lenn ci ngirum al imam malik noona lañ attee masala bu mel noonu ala kulli xaal ñaar yooyu suñ ca buñ ca def rek baax na waaye day fekk nag baytul maal nekk fa baytul maal mooy trésor boo xam ne l'islam moo ko samp teg ko nga xam ne luñ fa dugal rek jullit yëpp a ko bokk ginnaaw kee nag faatu na te baytul maal nekku fi kon li gën a maandu ci suñ jamono mooy delloo ko ko su jëlee farat su jëlee ciram ba noppi la ca des ñu joxaat ko ko tudde ko radd والله تعالى أعلم